maa gësul dara ci Serigne Touba. musuma it toog di déglu kenn ku may wax ci Serigne Touba. ndax dama ko nangul woon. maanaam bëgguma fàttali ko sax. lu weesu la balaa may jëm. ndax dingat ku bon bu métti bu ma daan ci yoon bi. ak wax yoo xam ne su ma koy bëgguma ko sa fàttaliku. ma yàlla fexe ba du suñu taawu kër nga xam ne mooy sama mag ma bokkal ndey ak baay moo njëkk a jébbalu suñu kër boobu ñun ay xale lañ moom rek fa nekkoon murit daan naa fekk yi muy bind si néegam ak yi muy taf mu koy xotti mooy duma métti sax ilaa yaxaada lahul mu euh, yàkkun wala moo wala mu yàkkun wala yàkkunu abadan lil mumkini daf ko bindoon ci néegam ci français mhm. mais Dieu m'a octroyé ce n'a jamais octroyé à personne et n'octroyera à personne yàlla may na ma loo xam ne mosu ko may kenn dootu ko may kenn mhm. ma ne ko lii waxi dof la yàlla dafa mel ne da ko ma bëgg wax ne dafa tële ba mhm. li mu may ki mënul ko may kenn mu dóor ma ci dóor yu métti ndax dama bëgg expliquer rek. Mhm. mu waroon jaar moom. 2006 yàggul. boobu maa ngi nekk euh, fu ñuy wax Tigo. Mhm. jamono yooyu Elo la tuddoon. Mhm. avant muy tudd Tigo. ñu ko indi Touba bokk naa ñu ci njëkk. ci vidéo laay wax ñu may dégg ñoom ñi koy indi Touba maag samay collègue ñu may dégg bokk naa ñu ci njëkk indi ñuy def réseau de distribution wu Sentel à l'époque. Elo. buñ fi mësaan ñëw dañ daan dem ba ci buntu jumaa bi ñi ci nekkoon murit ak ñu tuddul murit sax daan nañ dugg si jumaa ji di julli man sooto yi laay toog tolloon naa foofu daan nañ dem ba kër xalif ñu yóbbu ay ci màggal di yóbbu ay xewal gi demee noonu ay carte ñu doon maye ak ci téléphone wala xaalis bi ñu doon ziare si tout ça mais man dama doon lànk ci dugg ci euh, bokk ci délégation bi dugg tout maa ngi ci biir oto yi toog. ci waxee moo wax loo xam ne maa bi si. Euh, ma sori woon lool lool lool ci ñoo fa ma newoon. sori woon fa lool. ba yàlla dogal benn bis. ci deux mille cinq. ci deux mille six bi. ba may xëy fajar di liggéey. boobu maa ngi dëkk HLM Grand Yoff. Euh, Tigo ba ma newoon ñu joxoon ma benn 4 x bi may xëy di taal 4 x bi di liggéey mhm. maa ngi dingat Serigne Touba ci fajar bi may jóg mhm. bis boobu mhm. ci tisbaar bi ku ma gën a gëm sëriñ tubaa amul woon ci suuf si waaw sañ naa ko waat ndax moment boobu ku laajoon sama bakken bu xalif général sëñ Saliou ci jamono jooju bu laajoon sama bakken ma joxe ko fajar bi may xëy maa ngi dingat Serigne Touba murit kat maa bëgg sëñ Touba. bak tisbaar gisuma ku doon dox ci suuf ku ma gën a bëgg sëriñ Touba ci jamono te ba tey may waxee yow Mbacke mosuma seeti nit mu wax ma ci sëriñ tubaa parce que bëgguma ko woon mosuma gis lu ñu bind sëriñ Touba ma liir ko télévision bu ñu wanee sëriñ Touba dama koy mu jàll ah, ah, du rajo du dara bëgguma woon dégg parce que bëgguma woon gis lu dul li ma nekk Mbacke sama bureau laa toog yàlla rek ma tiim bu 54 ans la am lu ma wax dara lu neex ci nit parce que Ahmadou Mbacké Khadim ma wax dara lu ma nit di naan jërëjëf bugguma ko soxlawu mooy jërëjëf kenn damay wax li nga xam ne du ma ko deewaale ci li ma war ci sama diggante ak Serigne Touba muy lan seede Serigne Touba Mbacké sama bureau laa toog billaahi wallaahi wa taala treize heures jot ñu war a pause mhm. bu ñu mësaan pause sama xarit dañuy woo ku nekk nañ nañ a dem lekk ñu mhm. dem restaurant ñu dem cantine ñu dem fu nekk mhm. bis boobu mel ne dafa am lu ma jàpp ni ma toogal ma ne leen dem leen après dinaa woote ñu livré ma fi ma toog Mbàkke sama xel dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce moom rek laa xamoon moom laa bëggoon te moom bokk na si li taxoon ma doon xaadiriya moom yonent bi sallallahu alayhi fi ma toog sama xel dem ci yonent bi ma dugg Google bind poème sur le prophète Mohammed ay sites yu bari génn ma cliqué ci benn boo xam ne xaw ma ko wallahi lazim xaw ma ko mosuma ko woon xamit avant waxtu boobu muy htcom point com te dama ci cliqué te xaw ma lan lay tekki bi mu ubbeekoo li ci njëkk a génn ci ci poème mooy l'attirance du cœur vers le connaisseur des mystères. L'attirance du cœur En tant que kunduroog intellectuel. ma ne lii day l'attirance du cœur vers le connaisseur des mystères c'est qui le connaisseur des mystères kan mooy connaisseur des mystères. lii fa ma lire ko. Mbàkke ci français jàngu arab. ma koy lire ci français. di ko liir di ko liir di ko liir ba nit ñi ci waxee yonent bi commencé di ma def ay frisson sama yaram bi di daw ma koy liir di jooy ma koy liir di jooy ci bureau bi ba bañ ko ma fa fekk ma jóg caabi bureau bi lu ma liiree ba mu jeex ba ci suuf lu bind auteur deux points Cheikh Ahmadou Bamba ma mere sama bopp man ki ma doon dingat moo wax lii ci yonent bi sallallahu alayhi bi nga xam ne man maay woote ne dama ko bëgg Mbàkke ma jàpp ne bis boobu noonu Seydina Mohamed ci boppam moo a présenté Serigne Touba ndax bi ma jógee bi yonent bi laay seet lu ñu bind ci moom lu ma neex pour ma lire ko di nekk ci àdduna bi ci ay poème ci biir internet kenn xamul lu mu toll lu tax mu génne Jazbul Xulóob lu tax mu génne Jazbul Xulóob mm-hmm. te binduma Touba binduma Serigne Touba poème sur le prophète Mohammed la li ci génn xaw ma nu mu tollu ci arab ci monde bi ñu ci bind ñëpp jazbul xulóom boobu laa cliqué Mbàkke bi mu ma liiree auteur Serigne euh, Cheikh Ahmadou Bamba dama génn bureau taal oto bi ñu ma jox dem ba Sandaga Omar Gadiaga bi ngi may dégg te Touba la dégg su ma jug mm-hmm. cantine Omar Gadiaga moom laa njëkk a ñëw seet si ne ko Omar dafa am lu may seet mu ne mu loolu la ma ne ko xasaayit bu ñuy wax l'attirance du cœur vers le connaisseur des mystères mu ne ma ah man de xam naa ni am na ku ne fële jaay ay xasaayit dinaa la boole moom demal nga laajte ko mi ngi tudd xaw ma naka fàtte naa demee nga laajte ko mu ñëwee laajte waajooju moom dégg na français wax ko mu ne ma boobu mooy jaz bul xulóom ma ne ko moom laa bëgg nga jaay ma sëñ ci mënuma lire arabe mais wutal ma bi nga xam ne dañ koy def transcription. Mm-hmm. mu mën ko liir ak euh, mën a lire également li li ñuy wax lan lañ ci wax. comme ni ma ko doon lire français ci bureau ba. waa ji wutal ma ko ma dellu si si Omar Gadiaga ga mu jaay ma benn CD wu Jazbul Xulóob bi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddoos moo ko way 2005 ci màggalu 2005 maanaam bi wees. wallaay sa ma jël ko yóbbu sama kër. ma wàcc liggéey waa maanaam yeggali ma sa liggéey bi ñibbi sama kër. ma ñibbi sama kër ba dugg si saal bi dugal CD bi bi nii muy way. may dégg may may liir. ki ma la paas léegi sama soxla mhm. wàcc dix-sept mhm. ñëw sone jànq bi ubbil ko bi muy dugg si kër gi mi ngi dégg jas bu xulóom bi ci kaw mu naan kii def lii de bu ko fi Ablaay fekkee <laughs> mu waaxu ba dugg si saal bi fekk moom a toog jàkkaarloo penku téye jas bu xulóom bi xasaay bi di di mu xool ma mais ne lu xaw a jaaxle dellu si néegam mhm. dem sangu ji su meeku yow moom it muuru toog sama ginnaaw noonu téye kurusam bi ma paree bu dee yow loo la tey ma dettali ko lii ma la njëkk a dettali mu sëgg moom sama soxla mi may dégg mu ne ma Sëriñ Tuubaa amul worom ma ne ko lu tax mu ma bi ma takkee moom wax de mu ne ma ma takkee laa mësa woon ne Sëriñ Tuubaa ko lu ma mayul ma ne ko mooy lan mu ne ma dama mësa ñaan Sëriñ Tuubaa mu may ma murit te yow bi nga may takk takkoo ma en tant que murit tey nga taxaw ak man naan ma lu dul Serigne Touba bu doo ko dégg ci kër gi. dégg nga man Serigne Touba nangul na ma bu yàgg. sama soxna. sëy nañ ay at. 2001 ba 2006 bi ma leen di wax. moom moomu dafa jooy ne ma. nekk na sëñ Tuubaa kenn du ko ñaan lu mu dul naw te boo ko dogoo. waaw lii moomu dugal. yoonu Serigne Touba. ba léegi nag su ko guma jébbalu ci kenn. sama magi soxna mook sama soxla bokk ndey ak baay. muy murid saadix ñëw ci kër gi déggaat la même chose may yokk xasaay di mu doog a ñemee wax ak tànn nag man si Serigne Touba. mu ñëwee ne ma Ablaye li ngay diglu xam nga ko ma ne ko xam naa ci tuuti. mu ne ma may naa la boo ko boo ko boo ko boo ko teg nii semaine si sa biir kër gi te Serigne Touba la boppam ñëwal wax ma ko ma xàcc ci yoonu Serigne Touba. waaw waaw. boo wax ma loolu ma ne ko dégg naa ko man leen ma ko fas yéene tur sax bàyyi ba koy def semaine lii fas yéene ma ko fas fas yéene ma ko bàyyi. Mbàkke ñetti fan après bi ma ko commencé ñetti fan après. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. maa tëdd di nelaw. jékki-jékki gis sama kaw sama bopp si nuage ci gént. ma tiit sëgg di xool si suuf gisatuma dara ndax soriwaay. Hmm. ma gestu gis Serigne Saliou Mbàkke. mu ne ma Abdoulahi ma ne ko naa Mbàkke mu ne ma xanaa xamul lu yàlla wax maa ko wax barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi juróomi doom yi ma sama kër sama juróomi doom bi mujj juddu 2014 moom laa tuddee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Mbacke Diouf lii la ma Serigne Saliou wax Abdoulahi xanaa xamul lu yàlla wax maa ko wax Mbacke ba jël ba yeewaat ci fan trois heures du matin bi dugg si douche bi di sangu jënd sol sama yore wolof jëlaat caabi oto senteel boobu fëgg sama soxla ne ko bàyyi dem Touba bu dem lu xew ma ko bu ma jëyee daal expliqué ma ñëw station Total Liberté 6 bon wu Total yi ma sentel joxoon yëpp ma ne ko defal ma plein mu defal ma plein ma ñëw fii kër sëñ Saar gaare huit heures bi ma fekk buntu kër sëñ Saar am benn waay bu génn ma ne ko sëñ bi la nga def mu ne waaye ma ne ko man dama fi ñëwoon di seet sëñ ko déedéet mu ne ma sëñ Saliou du tey tey du bisi parce que boobu xaw moon ay bisu ubbeeg ay bisu tëjeeg yooyu ma ne ko ah sëñ bi man moom moo fi indi mu ne ma boo amee foo dal dama nga dal fa ba wala ginnaaw suba xaw ma nga doog si ma ko baax na mu dem ma wéeru si oto bi wéeru si oto bi yóbbaale woon jas bu xuloo transcription boobu ñu ma joxoon ba ubbi oto bi fu fekk xaw a tàng tuuti ba koy liir ne yow ki ma gis biig bu fekkee ne yow yaay Serigne Saliou yàlla bu ma fi jóge te gis ma la waa ji fekkaat ba fa ma taxaw ma ne ma sëñ bi yaa ngi taxaw ba léegi waaw mu ne ma tey ngaa wuti foo dal ma ne ko waa dégg naa la moom mu dem yoonam keneen ñëwaat moom dabaat keneen ki ci des ne ko sëñ bi mu ah, ma ne ko dama ñëw pour gis sëñ Saliou mu ne ma ah sëñ bi sëñ Saliou du bi tey ma ne ko sëñ bi man de li tax ma ñëw fii dafa urgent ba nga xam ne foog ma gis sëñ Saliou mu ne ma waa léegi a demal ci kees be soo demee nga laajte ku ñuy wax Tayib Jaxate Tayib sëñ Tayib ngi may dégg mu ne ma laajteel Tayib Jaxate nga dem wax ko sa problème dama ñëwee di nettali Tayib Jaxate li tax ma ñëw ak gént beeg yëpp Tayib Jaxate jóg ne ma xaw ma ku dul gis sëñ Saliou waaye du yow yóbbu ma ci benn nekk berdeel ma yoon woos ay soxna ñu berdeel ma fekk ba suuf ba tisbaar jot mu woo ma ñu julli tisbaar bi ñu jullee tisbaar pare mu ne mu ñëwal fekk ma fi ma toog ba ñëw mu yore di ubbi ay buntu di tëj di ubbi ay buntu di tëj di ubbi man Taïb Diakhaté ak Serigne Saliou kort Taïb Diakhaté sëgg di dey Serigne Saliou di ko nett di Serigne Saliou di ko naa man sama bopp naa wax naa waxal sama bopp 27 juillet 2006 may waxal sëñ Saliou te amoon kàttanu wax may sëgg di wax di jooy sëñ Saliou ne ma Abdoulahi nangul nañu la. lii mooy sama jébalu ci sëñ Saliou. bi loolu amee ma ñibbi si bind si sama ñi xam ñëpp boo xamal leen ni que bis si tey murid la wax ko sama waa kër yow soxna ne ko jébalu naa ci sëñ Saliou. wax ko samay xarit ñi ma jege nit ñi coow li commencé dem ba egg si sama sëriñ ya ma nekkaloon ñu werante am naak amul du moom dañ ko jaawale ko mënul nekk wax ji bari donte am na si ñu baax ñu ko nangu. Mhm. ak philosophie. mais am na si yoo xam ne sax yëkkati na seen kurus tëgg yooyu sax du jarul dellu si mhm. Mhm. Mbàkke bi loolu amee yàggul lool. 31 août. 2006 toujours ma accidenté accident bu métti ci yoonu Diourbel bi ak oto bi ñu jël si ma yóbbu ma hôpital xaw ma naka bekk bu Diourbel hôpital Magog yóbbu ma fa woo ambulance SOS mu jël si ma yóbbu ma Dakar clinique Patlet mu tëdd fa ay weer tëdd naa fa un lu topp ñu commencé yenn nit ñeeg daan mhm. gisagul dara waxoon nañ ko nangam sàngam kii li mu def dina ko rëccu nangam am ñu wax wax ñu doy waar yoo xam ne jarul sa dellu si ñu mhm. naan torox dañ ko xool am ku toog ci biir daayira ak i taalibeem yëpp te dégg naa de Abdou Diouf dañ ko lañ ma doon wooyee dinaa fa jébbalu ci murit waaye nañ ko xool day torox am ku fa nekkoon benn soxna boo xam ne sama xarit loolu ku mu bëggoon yow seet si mu ba sama kër ndax tiit ndax xamoon kooku ay waxam lu mu wax tisbaar tàkkusaan nga gis ko Hmm. mu ñëwee wax ma ko ma ne ko waxul ak man yéen lay waxal te boobu kenn wax ma dara kenn ma dara jox ma witt aw ma dara ma ko waxul ak man trop yéen ñi fa des lay waxal giñ naa ci Cheikh Ahmadou Bamba fii ba àdduna du tukki du amati taalib bi bu ma gën hmm. te loolu la yàlla dogal sax ñu jógee ci loolu man ñëwaat Dakar ama beneen accident ñaan gisagul dara kii tànk demul tuub jébbalu ji jéggalu ji wax ndangam sanga ilaa yow mi gën du ma ko def xam nga kañ la ñuy gëm ni torox na bis buñ ma déggee ma waatee leneen lu dul Serigne Touba oh. mais buñ ma gisee may lekk mbalit bu ñu waat ni torox na ndax man fu mu ne ni mbalit oh. lu dul Serigne Touba ne bëggatuma ko ñu nekk ci yooyu ay yéeg di jóg di daanoo jóg di daanuñu génn ma sama kër kenn sama njaboot bëccëg ak sama liggéey ñu génn ma parce que moom mm-hmm. syndicaliste la ma am ak problème tigo xeex ak ñoom ñu porté plainte moom porté plainte ñu xeex ba ñu génne ma sama kër mm-hmm. bëccëg ndar kam ma loolu yëpp mais keroog saa yu amee keroog laay gën a yuuxu Serigne Touba mm-hmm. ba yàlla defal jàmm stabilité te am ci lu bari bari bari bari ma tukki dem aéroport euh, Praia ñu jox ma fa responsabilité bu mag ma dafa benn société boo xam ne ñu ngi ko fa doon doog a ubbi muy Forever Living Product man la ñu yónni woon pour ma def euh, démarche yi foofu ci hmm. Cap ma def ko fa deux ans ñibbisi ñu jël ma aéroport yof ci Pape Mayer ma nekk fi directeur euh, safla am nekk conseil en communication ba aéroport AIBD bi di ubbi wallaay set bi aéroport ba AIBD di ubbi 2017 le 7 décembre 2017 géntu Serigne Saliou ba dellu si du lu sax yoon yootu ma du lu ma du lu ma wut du lu ma ñaanoon parce que soxla moon dara mhm. maa ngi doon dund Serigne Touba doy na mhm. Mhm. ma géntaat ñu ne ma faw nga dem Touba wuti ñaan ma ñëw ba buntu Touba foofu ñu def genre buntu boobu boo jógee Mbàkke di dugg si genre tabax arc bi daree rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am ku ma dab te gisuma ko mu ne ma boo duggee biir Touba dama laajte Abdou Samad mooy faj saajo. allahu akbar parce que Serigne Saliou Mbacke. allahu akbar xaw ma sax kuy Abdou Samad. billahi wallahi wa taalaay. mais bi ma duggee ba biir Touba. ci fajkat bëre bañ ma wax. jëmmam laa gis kanamam laa gis ma ne kii dama koy gis télévision waaye mosuma ko gis ak bët muy jëmm ji toog barki Cheikhul Khadim. kenn dootuma waxal tu ndax ba kenn. kii moo lay yegale. barke mhm. Serigne Saliou Mbacke. démb laa koy doog a gis nii ci jëmm démb. lu dul télévision mosuma ko gis. te lii du ma ko daj. tàggu sama soxla tàggu sama waa kër gi ñëpp tere suba damay xëy Touba. te ni ma ko xamee 2017 ba léegi mosuma jéem a forcer sax ku ma indi si moom. sama benn xarit bu ñuy wax Sali Hatim mi ngi mi ngi États-Unis yàgg nañ xamante mosuma xam ne dafa xam sàng bi démb ñuy waxtaan ci benn waay. boo waxoon du xaw a doy waat ci sëñ bi fan yi rek yu ci waxtaan internet noonu ba ma gis moom mu bind di ci di ci di doytu loolu ma woo ko téléphone ne ko bàyyil ma waa ji sëriñ Tuubaa kenn mënul wàññi ay mbiram mhm. leer na ñu waxtaan boobu ne ma gis nga barki sëñ Abdou samat ma ne ko yow man sëñ Abdou Samad ngay wax mhm. mu ne ma bu bu Tuubaa bu sëñ Souhaïbou Mbacké mhm. ma ne ko ndax xam nga ne 2017 ba léegi maa ngi koy seet mu ne ma coupé sa téléphone coupé sa téléphone maa ngi lay woowaat. ma sama téléphone. sëñ Abdou Samad woo ma man. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Ah, waaw waaw Mbacke Balla. waaw waaw reprendre. dama ne 2017. waaw sama géntu Serigne Saliou booba géntoon 2006. moo dellu si ci jëmbi sëñ Abdou sama bi hmm. te du lu ma lu ma sabab Serigne Saliou sax mun naa wax ni damaa jàng jasbul xuloo ba la ma ci gis ak yooyu yëpp ba luy am. Hmm. mais lii sabab lu ma si dara. Hmm. sama kër laa toog tëdd nelaw normalement géntuñu ne ma fokk nga dem Touba kalay kay faj sa aajo Cheikh Abdou Serigne Abdou Samad la te xaw ma ko bi ma duggee biir Touba jëm bii laa gis mu toog ma ne kii dama koy gis télévision te yàlla xam ne mus ko gis mosuma xam ku ma booleeg moom mosuma wax ak moom démb laay waxtaan ak sama benn xarit wala bërki démb vendredi ñuy waxtaan ba mu tudd sëñ Abdou Samad moom Saalihaati Salaam mi ngi États-Unis mun na ma laay ma ko da xam kooku mun na ma moo kooku di sama sëriñ ma ne ko 2017 ba léegi maa ngi koy xaar maa ngi koy seet mun na ma coupé sa téléphone maa ngi lay woowaat léegi boo coupé sama téléphone toog di xaar wooteem sëñ bi wooma allah akbar jërëjëf jërëjëf loolu day sëñ bi walaay sax <coughs> li ma dese sama dund fii. yoon Serigne Touba bi. ndeysaan jébbal naa la sama bopp. ndeysaan yàlla ah, amiin amiin amiin la ñuy jëf. yeesal naa sama jébbalu Serigne Saliou. yeesal naa ko ci yow. àddina ak àllaaxira boo ma ko nangulee. nangal na dama tudd yaa rasulallah suñu njaboot gépp jëpp